ay at yu bari noye mu ngi doon defar gaal bi ko yàlla waxoon te dugal ci ay njabootam yàlla nag bu noye pare gaal ga yàlla far na àddina ak ndox mu bari ba kenn dundootul ci kaw suuf ci jamono boobu noye rekk ak njabootam ñoo dund woon ndax ñoo duggoon ci gaal bi ñoo fonkoon yàlla ñoo bëggoon yàlla bi loolu paase am na ku ñu wax abraham bokkoon ci njabootu noy nit kookule ñu ngi koy waxe ibrahima ibrahima góor gu ràññeeku la woon ci ragal yàlla te fonkoon kàddu yàlla lool te sopp borom bi